naa la yow mën nga sol tubay te doo ko takk. mën naa koo sol tubay doo ko takk doo doo séntu. damay entraîné da nga ñëw nga sama entraînement. ñu ànd liggéey. am na yoo xam soo ñoom la suñu tubay seen tubay day wàcc. yàgg na waaw. mais mais mais combat bi combat bi li la bii di ñëw da nga 15 décembre. ban état nga toll. pare naa su doon tey pare naa su ma xool pare naa. mystiquement. lépp pare pare naa. Ah. Balla Gaye 2 aw ma lu ma ko fayee. ndax combat bi moo a bëgg. ak sama xarit bi sama sëriñ sëñ Madou Seye borom taw feex ak Nicolas ak soxnaam ak doom ñoom ñëpp maa leen gërëm de sax ndax dañ maa gën a bëgg combat bi ak monsieur le maire Aliou Sall Sall Ngaar ne ne taal ak Fouta Andaw Ndiaye ñoom ñëpp ak Ibou njaay sama doomu nday dañoo bëgg combat bi mais nan ngay toogee ak Soro mi mi ngemb mi kii sama rakk sama booy la ñoo bokk géej mais mais mais moom nan ngay bokk ak. kii doomu géej way la magam Assis Ndiaye c'est mon ami. waaw Baye am na droit grand Masata sama grand loolu du dara waaye booy bi non booy bi booy bi. Eh, Soro Soro eh. Soro yow nan ngay faralee nan ngay faralee wul. e Soro Kaay Soro Kaay e Soro Kaay Kaay Kaay e Soro Soro Kaay Kaay Kaay Kaay Soro Soro Kaay taxaw Kaay Kaay Kaay waaw kay taxaw lii kay action la eh Soro eh kay mu kay kay. xam nga booy bi man lay jàpp Soro ma la wuli dafa transhumé wuli gàmmu Tiwaawan kenn daaw ko jiitu kër Asi Ndiaye waaye ren dafa daw mayi la def man damaa tiit man damaa ñëw ne ana wuli ñu ne ma wuli de yaa tax ñëwul man ay waay lu xew. wuli fa nga ne nga ma kay kay kay nga wax ma na Soro sama rakk la c'est mon ami Soro Ndiaye man Ndiaye moom Ndiaye. jox ko bi. Essoré Essoré dégguma li ngay wax de. waaw jox lii lu koy fay déglul déglul fii kii. dafa daw dafa daw man damaa tiit. man de raam non damaa transformé léegi maa ngi ci maa ngi ci liiru liiru liiru liiru wuli bàyyi naa maa ngi ci liiru ñëw naa ñëw naa. géej waay géej waay la géej waay géej waay la dëkk. wul du dara. wii ma kii ñoo koy dalal Gambie ñoo koy nuyal hôtel ñoo koy sax. Bakaaw lañ jël Bakaaw Bakaaw. Bakaaw lañ jël lii lu koy fay booy. Gambie danañ fa dóor mu daanu xaw ma. Gambie danañ ko dóor. danañ fa dóor nit. waaw mu daanu. mais kii dama ànd ak moom entraînement. waaw loo gis. gis ni mu ngi ci état physique bu doy waar. kon lu màgg itam jàll. déedéet. kon lu baax. mais yow kon da nga gënt di gis ni dañuy dóor kenn. Ah, man xaw ma. dóor mu daan xam nga li may wax saytaane xam nga waa muy ñëw la buur saytaane moom mooy papaay saytaane yi. mais buur bu mag saytaane bu mag. ni mu nekkee saytaane. saytaane la buur déggoo li muy wax léegi affaire saytaane lay def. mais waxul waxul ba tey ne dañ lay dóor mu daanu. non dafa ne Gambie bi d' accord weddi wu ma di leen fa dóor nit mu daanu. waaw xam naa di leen fa nit mu daanu. ndax combat bi di ma xeex man ak moom di leen xeex yàlla naa ko dóor mu daanu. Eh, wuli Modou Lo ma ko indi. man Balla Gaye dama indi. Eh, waaw. Eh, leer na man Balla Gaye 2 mi ma yóbbu sànq na ni dernier combat am lay bëre su paree dem États-Unis tëdd fa. dimbali ma bul ma catu kaar sa gatu gémmiñ mais kuy favori kuy favori ci combat mais wuli instant bi dafa am doole dafa taxaw dafa bari doole. mais dafa tooy dafa tooy. wuyu ma man damaa liggéey ba tooy xool ma damaa liggéey ba tooy. <laughs> damaa liggéey ba tooy. du jàmm bu. yow mafia bi ngay xeexal quoi yow du wuli rek. non non du wuli dafa am leneen lu lax si biir ay saytaane yu nekk ci suuf. promoteur yi am nay saytaane reporter yi am nay saytaan am na yeneen saytaan yu ma tudd. yow nëbëtoo li ngay wax. déedéet après laay gën a leeral après. après ñu